sa jëkkëral laa bëgg a xam turam ana séeri Ibrahima Fall pilifoori Ibrahima Fall aman njaay sàmm la ñuy wooyee sa baay sama gawlo baa ngi nii Abdalaay ak Maajo sa xol la yàlla fay waru gar bi guro la maye mag la sëy na sëyaat ba muy gone jar na bay jar na njugu bay boo demee wax leen loolu dégg ah, madame Ibrahima Fall waaw taalibe maam Cheikh Rafaal bu pare ñu dëppee ko maam Cheikh Rafaal nit ku weex tàll la tuubaluma ko roqi mbay mi ma ko may moo ko tuubal ci pendant trois ans ma door koo xam génnuma ak moom trois ans gisantewuma ak moom gisewut ak man roqi mbay mi tax ma xam ko laa la wax moo ko tuubal ñetti at waa taalibey borom ndigal faal yi ñoo ko tuubal ak waa kër Serigne Touba ñoom buñ ko fekkee foofu sax dañ koy jox àddiya saa yoo demee ma nga ca daara ja di jàng alxuraan di jàng xasaayit kan surnom bi sama jëkkër laa koy wax ci swedis maay ma ma euh, euh, kii maay maan laa koy wax rek maay mooy sama jëkkër ci kii ci swedis loolu laa koy wax ndax suite la suite lay làkk waaw lii safu la yow damaa ngas ba ngàccet ay picc safatuma dépassé naa sëy baal yi ngay def tëjal fermé dama koy coupé de karaj kan nu ma ko nar a teeroo xanaa wàcc aéroport def sama robe bu balaa buy buubu suuf taalaw rek yëre course bi ah nu ma koy teeroo rek lu sama course teeroo ko ba bu bu yegsee ba tok nu tudati samfal di jolli lo rek la ko meuna tero samfal Sam Fall si Baye Fall la waaw ñun borom waaw ah munuma la ko wax nak franchement parler parce que amna yo xamne vraiment sen ce n'est pas waxabal da ngeen laaj nak nit ba laaj ko pankarayaam bi fum fete waaw te du len ko meuna wax ndax munta janna ci bi ma kontaan ci moom torop torop torop te lii mu am nii dama ko koo yéene xol laay waxee parce que Maïcha dafa nekk koo xam ne liggéey moo ko moo ko boolee moo ko booleeg ñun ak Leuz magu Leuz moo magu moo toog nii kii ngaala la ñoom xam nañ baax li may wax Maïcha amul amul amul problème ak kenn amul xar ma yàlla ak kenn xolam dafa rafet mu nekk ku baax koo xam ne macha allah euh, je tous du bois Maïcha kenn la. xam nga nag ndeysaan doom day naqari ci muy wax ci may ak yaayam. waaye nag lu mënta ñàkk fa moom am sunu yaay la nuy may bu ma kenn laaj na kan la sa yaay di sëy man loolu laay bañ voilà sama yaay daal la nuy waa sama yaay tubaab ko takk ndax sama yaay ndeysaan day missionnaire bu baax te xam nga am na ñoo xam ne yàlla da leen a yónni ñu séddale sama yaay mission bi mu war a dox Europe tubaab rek ko mën a takk voilà muy koo xamee sama yaay mooy yow sama yaay di garmi da ko tuubal tuddee ko maam Cheikh Ibrahima Fall di Baye Fall te sama yaay nag yaay Fall la ndax Cheikh ndigalay sëriñam muy def tarbiya ca Mbàkke kon tey bu demee ba ab maam Cheikh Ibrahima Fall mu jëlee ko ca fan Suède waaw gis nga fa mu choisiré ca Suède la sama yaay choisiré tuddee ko maam Cheikh Ibrahima Fall kon dañuy ñaan yàlla may nu ñu yeggaleeg jàmm yàlla muccal ci cat voilà ndax kuy naan ngelaw du bà njar mu sedd gu yegg glace dañu cat ñu yeggaleeg jàmm sama séw bi ya allah def ci barke ak sutura ak taranga ba ma am ci yeneen rak mën na ne di am ci yeneen rak yàlla def ko sutura ndax xolam rafet na. dan koy def rek footballu mag bi xana tek ko ci yoon rek jox mu lek jox mu naan wax lu neex jaamu yàlla. ay da lañu woy wooye mbokk yaay maam ay sa samb li ni topé doomi gar yaangi ci yow muñ nu metti lool gore la roxé ana roxé ñàkk ki ñaan li yëpp sa ñàkk la bokk kon nag layoo bi jeeg bu doom ya màggee atel leen sa yaay layoo naag jeeg ji leen